www.sangatv.com. salaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi ak am di jàmm yi am mbégte ak kontaan àndateeg yéen ni ma daan ànd ak yéen altine bu nee ci li nga xamante ni mooy seetu Sénégal di wax ne nag euh, tey ajaratu Mati Dieng na naa la ndax euh, tubaarkàlla macha allah nii laa daan ànd moom chaque altine su ma waxee ne euh, su ma dëbbee mu kandang ajaratu Mati jeng foofu ci États-Unis maa ngi lay bége bu baax a baax di la ñaanal congé jàmm ak salaam yàlla ibbi la fa ay xéewal ak di wax ni Sénégal maa ngi nuyu kilifa aada yi ak waxtu yaa ngi ci lalu hôpital maa ngi lay ñaanal yàlla fëgg sa bopp ba nga dellu ci sa njaboot képp koo xamante ne yaa ngi si prison maa ngi lay ñaanal yàlla teggul la natt boobu ba nga dellu si sa njaboot di ñaanal képp koo xamante ne rek waxtu wi da nga am doole poos euh, feebaru poos ku ci mel ni Demba Ndaw yàlla na yàlla duy poosam ba mu fees ak ki xamante ni mooy promotion di nuyu Sénégal gépp di leen wax ni nii la ñu ñëwee ak yéen ci altine bu ne di leen nuyu te di leen bëggee di wax ni nag euh, la waxoon rek euh, angaar yi wax koppi jëf fay na ko te li may wax appulaay sama rakk jooju nga xamante ni maam Seydi moo ko téyal boppam laay Alassane ak Seyni maa ngi lay béggatee di la ñaanal di nuyu ku ci mel ni madame Ndiaye sama yaay ak Julde Mbaw kenn du mami Mbaw borom Kaolack démb Kaolack teppeeku na di wax ne Sénégal teg leen seen baaram ma ñëw wax leen mami Mbaw Ngala sama uude boobu madame Tall nan la jëflanteeg man démb fële ca Kaolack ak képp koo xamante ni rek liggéeykat nga foofu ca Kaolack di di sargal jigéenu Kaolack gépp ak jigéenu Sénégal gépp di wax ne nag tey tey la tey Apulaay di ñëw bu fekkee benn clip pare na ñu béggal gars yi di wax ne nag ku ci nekk fa nga toog eh, ka ca nekk eh, dama bëgg nga jël sa taabal saal puusal ma ko ndax tey la tey ndax dañu am eh, invité surprise boo xam du ma ko wax kenn damay bàyyi ba mu yëgsil boppam koo xamante ni parolier la lu mu wax dootu ca dellu te lu mu wax am na fu mu ko teg te day ànd ak mbalax mu tar fatt tarak comme tey la tey di wax ni Sénégal am mbégte rek kontaan te ànd ak fan si nga xamante ni ñoo may bëggee di ma ñaanal fu ñu toll man tam ma di sàkku ci ñoom ñaan di leen ñaanal wér ak gudd fan ku ci mel ni tonton Issa Sène ca njamaan duma la fàtte benn yoon tonton El Hadj Diagne ñaar sama séeréer boobu maa ngi koy bëggee bu baax a baax abi borom yoof eh, maa ngi lay bëggee di bëggee nday bébé sama xarit ba jaatakunda kenn du yow ci man jaw farama jaw xool yoro jaw booli mboj ki nga xamante ni mooy ñaaña jaw kooku tamit amul ñaaña sama xarit boobu yàlla na la yàlla defal jàmm di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi interview am nag ay grande dame yoo xamante ni ah, ña nga interview ku ci mel ni Adama Sène ah, sama seexu yàlla boobu nga xamante ni kenn du moom ak ah, Mami seen ñoom Mami Diouf ñoom ñëpp fi mu ne nii ña nga jël mari Diouf ña nga toog di ma seetaan ak Rama Sakho sama doomu yaay jooju nga xamante ni doo yëpp yaay rawaan de la kenn du moom Rama Sakho Rama comme clip bii may teg yaay rawaan yow laa koy may Rama Sakho jëlal borom Kaolack di wax ni Apulaay bu clip bi yembee rek ma daal di commencé ci li nga xamante ni mooy lënd bi nañu xool ñu ñu ibbee suñu lënd ak ban clip la ñuy may ñi nga xamante ni ñoo ñuy béggee saa su ne acca boog Madické Gueye ma ngay diggal a gasang fële ca fa nga xamante ni mooy interview defe naa ne Sénégal yëpp bégg nañ ci Aïda Samb ci lii lan la di wax ni képp koo xamante ni am nga koo loof rek maa ngi la doon jox Aïda Samb boobu ci xol bu sedd guy di wax ne nag Apulaay tey ki nga xamante ni moom ma gunge ci sama plateau ba wéetu ma mooy ki nga xamante ni ah borom grand bal sama fans bi nga xamante ni bala ma ko bëgguloo kenn maa ko njëkk bëgg ba mu jeex muy Youssou Ndour képp koo xamante ni woote nga ci 88 628 22 22 yow yaay choisir grand bal nga bëgg muy li nga xamante ni mooy calendrier grand bal ak ay photo yu yanj yoo xamante ni sama soppe bee ci ne muy Youssou maa jigéen ak li nga xamante ni mooy euh, calendrier lops wala benn tiset bu yanj boo xamante ni tubaarkàlla macha allah yéen a seen gis ngeen ma neex na féexloo neex na jiitloo képp koo xamante ni woote nga ci numéro yooyu nga xamante ne dafa affiché ci bas ecra bi soo wootee dinaa la tànn yow yaay tànn nag sax bu la neex bu la neexee muy bu L'Obs bu la neexee muy clandrier bu TFM ak yeneeni loo te yor naa tey xaalis bu bari boo xamante ni képp ku fëgg sama bunt bi boo ibbee rek di nga sa xol dina sedd guy di wax ni Apulaay maa ngi wax ni fans yépp nañu woote ma am lu ma jëflanteeg yoon ndax teraanga du tuuti borom lay tollool te tey ki nga xamante ni moo defar bis bi ba mu taaru kenn du Amet Tijaan moom nga xamante ni mooy sama téyéer ba borom añam couture taalibi sëñ Babacar Si boobu nga xamante ni mooy borom bonekaare bi jéngul wengul te newul kenn àjjana maay ki ko moom Amet Tijaan dundal say may di baawaan ah sama pël boobu tooroo da Samba Ngaari Jamaa borom Fuuta borom añam kenn du yow ci man amet nag eh, Maguette Mbaye sama rakk ji da koy sargal sargal bu ris bëgg naa képp koo xamante ni client nam nga wala soppeem nga ak soppeem Maguette Mbaye rek na nga dem bulu sax so nañ jël ki ci ligne bi ma xool moom ban la choisir allo. allo soxna si noo tudd ak fooy woote. ay waay ay waay ëppati na yaa ma gën a neex. dama li ngay sañse yaa ko bëgg jéegi Sénégal gépp kontaan Europe Asie képp koo xamante ni jeeg nga rek nga yëg sa bopp ah. moo màggee na yow laa bëgg a mel. eh ëpp na yow mel nga ko ba pare noo tudd ak fay woote. maa ngi tudd fan nga ñuy woowee. Pikine. ana waa Pikine. ñu ngi fi rek ñëpp di ah, mbaa Yacine Mbaye sama rakk ja ca pikin madame Mbacke maa ngi la koy nuyuloo. <laughs> loolu ban quartier nga dëkk ci Pikine. essence tali bu mag. Mhm. yow de comme que yaa njëkk a fëgg sama bunt. Mhm. tey nga xam ne kuy dóor a man kuy saaka. léegi dama yor ay tisetu laps yu yu neex a féexloo ak li nga xamante ni mooy calendrier grand bal nga xamante ni sama sopp bee bu nga xamante ni mooy yuusu maa jigéen mi nga xamante ni nee na travailler toujours travailler et encore travailler ah moo ci ne ak ay photom yu baree bari te yanj yow nag yaay choisir bu la ci neex rek ma may la ko te du ma ci yem damay am leneen lu ma ko booleel ay cadeau surprise yu bari laa yor léegi ban nga ci bëgg bu TFM wala Lops wala yuusu maa jigéen grand bal bii nii yow daal bii nga gis yow daal di nga xam ne tey kuy dóor a man kuy saaga kii maa ko bëggal sama bopp balaa dara ba may tuut ba léegi xam nga léegi nu ñuy def dinaa jëlu sa numéro ci suuf ci appulaay mu am nu mu def yow ci njoganal ba pare doog laa booleel sunu fan si bi nga xam ne réew mépp ko bëgg di ko ñaanal gudd fan ak wér mu Youssoufa Condé ah billaay wallaay amin day génn feebar ci nit ndeysaan jërëjëf calendrier baa ngi noonu wallaay ndees xoola xoola kaay ma woon la photo yi ci ne pour bu balaa ñëw sa xol feex ndax Youssou maa génn day seral xol te li mu wax rek téere la day woy woyaale réew mépp yaa ngi dégg morsom bu bees boobu muy wax euh, bojo bojo oh oh billaay jël ngeen ko léegi jëlalee ma numéro maa ngi nii di wane li nga xamante ni moom laa ko war a jox xolam di féex fu mu ko wékk xam ne wékk na fa ndaanaan wékk na fa koo xamante ni ah légende la ci réew mi te ku nu war a roy la muy Youssou maa jigéen ñi maa ngi dem de kenn du ma téye defal nañ la ci photom yoo xam ne boo ko xoolee rek sa xol day féex comme Sénégal noonu la ñuy ànd yéen ñi képp ku woote rek dinaa la def ni sama fans boobu jox la ko di la ko jox ba mu doy acca te duñ ci yam ndax eh, am nañ yeneen calendrier yoo xamante ni pour yéen la L'Obs ñëw na moom mi nga xam ne ku bëgg information bu leer jege leen te lu nu wax téere la te lu nu wax lu wér la du nu waxandoowoo ñoo kenn L'Obs rek la nu wax te du ñu ci yam ñu ñëw ci tele bi nga xamante ni mooy number one ci réew mi ah dem Demba Ndaw damay dem de kenn du ma téye est-ce que xam nga ni damay dem jël leen lii képp koo xamante ni fan su TFM nga soo ma woowee ci 88 628 22 22 dinaa la ko jox boole ko yeneen cadeau surprise yu amul fenn Demba xol sedd na xoolal promotion ak bëgg TFM. acca allo ki ci ligne bi na ñëw. alo allo oui. ça va. ça va bien chérie noo tudd ak fooy woote. Amina Richard ah ana waa Richard Toll. Ah? ñu ngi ci jàmm. mbaa jàmm ngeen yendoo. jàmm rek. waa ñu ngi lay dalal ci suñu seetu bi. Uh-huh. wàññil sa télé pour déggante bi gën a neex bu ko defee ma am lu ma jëf jëflanteeg yow. wàññi nga télé bi. waaw di yaa may seen. maa may seen nii ni la Gaye defoon mbër ma. ah. ma ne est-ce que yaa may seen. gis nga li ma la yëkkatil. waaw. Ah, ah, wàññil télé wàññi sa télé yow sa tele waaw. wàññi ko ma am lu ma jëflanteeg yow. maa waaw léegi yow dama bëgg ma wax ma ban nga choisir euh, tisetu lops bi ma may la ko wala ma jox la sama grand bal bi nga xamante ni sama soppe bee ci ne. mu yuusu maa jigéen ak ay photo yu bare yu neex yoo xam ne boo ko xoolee sa xol bi day feex ak li nga xamante ni mooy bu TFM waa ma ban nga ci bëgg. Youssou Ndour rek. Youssou rek. yaa bëgg ku baax te bëgg réewam. da nga ko def da nga ko def si sa xol. léegi dinaa la dinañ jël sa numéro. ñu jox la calendrier bi te duñ ci yam ndax am na yeneen cadeau surprise yu muy àndal. app jëlal ma waa Richard ay waay maa la gën a bëgg. da bëgg leen moo tax ma xëy app yéen ak may jëlal numéro jox ma keneen sama yaram dafa tàng allo acca nañ jël keneen ma daal di koy teral ndax defe naa ne tey ah dama ànd ak Mor ma muy ndaanaan bokk ci les hommes de l'ombre nga xamante ni boolewul dara ak wax Mor Xarma l'homme de caisse mu toog jàkkaarloog man ma ànd ak ki nga xamante ni l'enfant chéri de Grand Yoff tey tey fii dafa war a ala mi te am na invité surprise bu mag buy ñëw boo xamante ne ci kanam di ngeen xam ni pomme du moromu naw Angleterre pombiteer terre ja da nga leen boole te tey nag promotion nee na moom it du ci duñ seetaan ñu ciy ñaaw tey Apulaay di nga xam ne am nga gan yu riis sama salon dafa riis ma wax ni nag démb rek heure bi maa nga ca Kaolack ndangaan di léegi Kaolack ànd ko ja Mami Diop di ko massawu nag di ko wax ni loolu ko dal mook àdduna ànd di ko jaale nag euh, moom Mami Diop magam jooj nga xamante ni dafa génn àdduna di wax ni nag euh, loolu ak àdduna ñoo ànd demal maa ngi ñëw rek la euh, di wax ni nag ki ci topp mooy ki nga xamante ne mooy Ndey juuf sama njëkke la moom it dafa ñàkk papaam muy père ma a juuf fële ca Kaolack di wax ni suba la troisième jour bi képp koo xamante ne xam nga Ndey Diouf bu sëñ fàllu mi nga xamante ni moom mooy woy yu neex yooy di bégal jaam ñi moom it dafa ñàkk papaam képp koo xamante ni fan sam nga am di jàmmam nga nee nañ suba la troisième jour bi fële ca kaw lax ndàngaan képp ku mën a yegg mën nga yegg ku mënta yegg it nga yëkkati sa téléphone masawul ñu suñu yaay jooju nga xamante ni fépp fu mu nekk rek daf nuy dooleel muy Tata Ndeye Diouf di nu fii ci télé bi dinu dalal te dinu yokk Tata Ndeye bu ñu doon tegee naqar duñ la ko teg acca nañ teg Viviane ñu bégal gaa yi te xam ne loolu ak àdduna ak ànd non stress lañu wax acca na Viviane ma leen di attaayaal ngeen may def nii. xiimal waay ne te ñu xewle. ah te ñu xewle. waaw baax baax na. Fojo ah. Fojo Fojo. contre trois non kii kii moom man man. non non loolu mënul a. yéen a ngi waaj seen i bésu jigéen ñi. jóg leen ñu dem seen i sargal jigéen ñi. bésu le 8 mooy bésu jigéen ñi waaye le 10 Christmas mooy bésu jigéen ñi waaye le diis laa leen woo ana Mali ana Guinée jigéenu Gambia Mauritanie ak Sénégal ana Mali ana Guinée jigéenu Gambia Mauritanie ak Sénégal na góor ñu ñëw sargal jigéen ñi jigéen ñi la nara dootu fi amati bu ko kenn nettali la nara xew seeni li de masu fa am ko kenn nettali vivo Zénith ànd yuusu mbay jëy fi sabar yi xumba lang gi lang gangi mbégte maa ngi kañ ku langandoo bés bi de bésu jigéen ñi jigéen ñi la sama góor ñi woo naa leen bés bi bésu jigéen ñi la le 10 mars le 10 mars le 10 mars Viviane biir Zénith incha allah ni incha allah ak Viviane lii de dafa nar a neex inshallah ni inshallah ak Viviane lii de dara du ko fay inshallah ni inshallah képp kuy jigéen man dinaa la sargal inshallah ni inshallah mooy soninko yi animalier olof yi ñëpp a ngay dem seni tegere tegere olof bi tàccul mali séeréer bi tàccul mali joola bi tàccul mu neex inchallah inchallah fi bi le 10 mars dafa nar a neex inchallah inchallah waaw sëriñ lu fa nar waaw képp kuy jigéen rek eh, dégg nga lëla Viviane Dik foofu ca la 10 mars nee na dina leen wang di nuyu sama bébé boobu Aïssa foofu ca Espagne di ko béggee bu baax a baax di wax ni xawaa sama chéri boobu def saa yu ma xëyee boo laalul sama yaram du ma féex ki bëgg sama jëkkër ji ba mu jeex xawaa bég ci yow di wax ne xam kenn du la jiitu fële ca Zénith ndax dañuy sargal jigéen te Viviane woo na Mali woo na Guinée woo na waaye suñu grande dame ci réew mi kenn du ñoom vivian nee na kenn du des amul ku mu ba ajaratu mati sax day toog euh, États-Unis ba nga xamante ni rek jour ba la mu jubali Zénith ak keneen ak keneen gars yi ñëpp pare nañ ku ci mel ni Alfi Ba ah moom it pare na nee na day dem ndax Bercy bi comme que rawoon na ko Alfi jël sa valise maa lay yóbbaale yow ak ki xamante ni mooy madame Seck ñaata ñoom ñëpp ñu ngi leen di xaar ci kii ba aca ah, téléphone bi na ñëw ma xool allo allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam na def soxna si ah la maa la gën a bëgg chéri bilaay walaay noo tudd ak fooy woote man maam jaara njaay ah njaay jaata njaay dërëm man dama la bëgg wu bëgg nga ku baax ku bari jom. maa waa Tëngéej. mbaa ñëpp a ngi ci jàmm. ñu ci jàmm bu baax la. maa la gën a bëgg ba mu jeex waa aj kii waa Tëngéej. gis nga li ma yor. bëgg nga ko bëgg nga ko. muy tisetu Lobs. du xam nga Lobs mooy euh, journal boobu nga xamante ne lu mu wax téere la. xam xam nga ko bu baax. xam euh, léegi xam nga nu may def ak yow. damay jo da ngay appelé da jël ci suuf. mu mu jël sa numéro ma may la t-shirt bu yànj bi ak yeneen yoo xamante ni surprise la lops moo la ko neexale acca boog app jëlal ma kooku di wax ni kële Serigne moor Thiam El Capo bi nga xamante ni Youssou Baro nee na yow yaay El Capo mu ngi lay béggee bu baax a baax ku ci mel ni Maguette mbaay maa ngi lay béggee Ndeye Sarr foofu nga xamante ni salon maam Awa Dieng foofu ci Petit Mbaaw Ndeye Sarr sama njëkke loolu euh, doomu ndey Iya maa ngi lay béggee bu baax a baax ak képp koo xamante ni waxtu wi yaa ngi may seetaan foofu ci Petit Mbaaw rawatina nag euh, waa supermarché euh, Amina ka fa nekk di sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke maa ngi lay béggee bu baax a baax ak waa supérette yépp di leen wax ne waa Petit Mbaaw aw ma seen fay monsieur Diouf maa ngi lay béggee ak Maodo ma sama jëkkër ji foofu ca Petit Mbaaw di képp koo xam ne lébu nga rek fii laa la def maam Tine Chéri Dieng kenn du yow di wax ne sama gaa yi woote leen ma jox leen ci li nga xamante ni dama ko yor rek waru leen koo jox ci année bu bees bi muy Youssou maa jigéen sama fans boobu nga xamante ni def leen ay tiset 88 628 22 22. sens mooy ki koy déglu Youssou nee na na ñëpp nite nite ci la lépp wax Ndour Waly Mbergane yal na yàlla wéral sa baat su may wax ci yow sax sama xol day feex man parce que la ngay wax dama koy use euh, sama papa jooju bàyyi biraan yal na yàlla guddal sa fan wéera sa yax bàyyi la fi nga yàgg noo bégal ndax loo woy téere la yal na la yàlla fal cat bàyyi la sunu kanam nga dund dund dund ba dundu sàpp la Youssou maa jigéen di wax ne nag euh, kenn du fans ba sama yaay bañ na ko ba du ko ni Youssou Ndour ndongoli Ndour rek su duggee ci oto nee na balaa xolam a féex ajaratu bu sa njaay foofu ci intuit ñu tegal ko ndongoli Ndour comme ndongoli Ndour sama ajaratu ba euh, laa ko doon may ajaratu bu sa njaay di wax ni nag euh, kenn du ki nga xamante ni mooy promotion moom daf lay bindal ay euh, dédicace yoo xamante ni ah nee na mi ngi may Ndey Ami Diouf ak Marème Fall foofu ci Rufisque promotion mi nga xamante ni mooy sama xarit ci télé bi moo ko maye di nañ jël ki ci ligne bi ba pare ma ñëw ci promotion allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. sang bi na def. ça ngi lay dalal. noo tudd ak fooy woote euh, Mouhamed Fati parcelle unité eh, waa unité 3. ah maa ngi lay laaj mu amet boroom añam ci lu mu ne. yéen a ngi ci jàmm. léegi Mouhamed euh, ñu ngi lay dalal ci sunu seetu bi wax la ne nag am nañ fi ay kado Mouhamed alo oh Mouhamed dafa mel ni télé bi nga yokk rek alo sàcc bu dul raw jot a yàq nelaw apulaay bu keneen ñëwee rek nga yéegal ko alo allo allo. ligne bi moo saturé ndax fan yi ñoo bari allo ki ci ligne bi ah boo ñëwoon rek euh, dina ma gën a neex bu ko defee nag ñu daal di mën a ko ku ci mel ni maman Sali jee borom Angleterre maa ngi lay béggee bu baax a baax di wax ni ñu ngi nuy waa Angleterre yépp f bu Gambia foofu ci Angleterre maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo xamante ne ne Ndumbé nee na moom dafa bëgg a dem genit parce que ci grande dame yi la bokk bu ñu limati kenn yaay yaayi mama Nogay foofu ca Géejawaay ndumbe Dieng Saala artiste comédienne boobu nga xamante ni ndaanaan kuli fad ren la nee na moom it day dem Zénith kenn du jaal Diop foofu ci Touba Mbacké moom nee na fans Wally la allo ki ci ligne bi. ku fëgg salaamaaleykum. maaleykum soxna si na def. ça va noo tudd ak foo ñuy oh, woowee. Eh? man la Dieynaba maa ngi Grand Yoff. Dieynaba eh, leen di dalal di leen wax ne. waaye dara maa la maa la gën a bëgg. ça va. ça va très bien Dieynaba. ana waa Grand Yoff. mbaa ñëpp a ngi ci jàmm. ma yaa ngi may gis. sama cadeau yi nga xamante ni dama ko yore di leen ko may. waaw gis na cadeau grand bal bi ma yor. Euh, Youssou Ndour photo bu rafet ci moom rek di seral xol mu ngi ci biir. Mm-hmm. su fekkee bëgg nga ko. waaw ma jox la ko bëgg nga bii. waaw bëgg léegi xam nga nu may def ak yow. waaw dama appelé day jël sa numéro ci suuf. ma daal boo ñëwee rek ma daal di lay may li nga xamante ni mooy calendrier grand bal nga xamante ni boo ko wekkee sa néeg ku fa dugg respecté la ndax ki ci nekk légende la te ku ñu war a roy la app jëlal ma numéro jëlal ma numéro. télé bi nga xamante ni rek mooy number one it mi ngi nii sénégalais bëgg ko gambien yi bëgg ko européens yi bëgg ko waa Espagne bëgguñu yàlla na seen jàmm yàgg ndax yéen ñi nga xamante ni yéenay suñu fans yéen a jël première du ñu ñoo jël première parce que yéen yéen a ñu dooleel ba lu mu yootu jot ko yàlla na seen jàmm yàgg ñu yàgg leen bégal ñi nga xamante ni dañoo safoo TFM te di ko seetaan kenn du lobs ndax képp kuy wut information bu leer ah ci ñoom ngay ñëw Boubacar Mari Mbay borom maam ya ca Gorée kooku nga xamante ni maamam moo njëkk a yëtt gaal ni waa Gorée yéeg leen ñu dem comme moom bu tëyee micro ni dërëm ak kuddul dërëm jàppal micro ñu wax Boubacar foo nu diri ñu ñeme fa chéri maam jaara bàyyi zid junior maa ngi lay bëggee bu béré wér mu yor li nga xamante ni mooy RFM tamit ku bëgg calendrier ñu may la ko nga wékk ko sa kii wooteel ci vingt 628 vingt 22 ñu jox la li nga xamante ni mooy suñu calendrier yi nga xamante ni dañ leen koy may ci fin d'année bi te duñ ci yam ku ci mel ni promotion na dafa joxe woon euh, dédicace am jàllale naa ko wala jàllalewu ma ko promo ma euh, Ndeye Ami Diouf dégg na ma ca Tëngéej maa ngi koy bëggee ak ki nga xamante ni mooy Marème Fall fële ca Tëngéej ki nga xamante ni mooy maman Sali tamit ñu ngi lay bëggee bu baax a baax képp kuy grande dame rek ah maa ngi lay bëggee ko grande dame nag nekkul ci solo wala ci dara grande dame ku nangoo liggéey ku yërëm jëkkëram te jàppale ko loolu mooy une grande dame yërëm sa jëkkër jàppale ko bëgg ko bëgg ay mbokkam kenn du sama bàjjen soxna Fall foofu ci Petit Mbaaw chéri la baron maa ngi lay béggee bu baax a baax Khadija sama jarbaat boobu ci maa ngi lay nuyu ak sama bàjjan ba ndey Guèye Fall maa ngi leen di béggee bu baax a baax ndax ñooñu bàjjen plus njëkke lañ kenn du bàjjen Khoudia Fall ak sama bàjjen ba Aminta Fall mi nga xamante ni ca ngor ga ak diñ ga maa ngi koy béggee bu baax a baax di nuyu sama maam Khadiata Fall di leen wax ne bu heure bi jotee ñoom ñëpp dañuy bàyyi li ñuy def di ma seetaan maam Khadiata dundal say maam di di baawaan ak maam na bu Basel maa ngi leen di béggee acca ki ci ligne bi na ñëw allo allo ki ci ligne bi oh maam Diop Gajaga Gajaga Lawbeem Ndoom bu gore bu baax bi ci man yaay Nogay Fall maa ngi lay béggee bu baax a baax eh, fo ak chéri Pa Fall di la béggee allo. ki nekk ci ligne bi allo waaw. soxna si nanga def. maa ngi fi. noo tudd ak foo ñuy woowee. maa ngi tudd Yacine. foo ñuy woowee. Medina. ana waa xanaa yow xam nga Doudou Saw comme l'homme de Medina. waaw mm-hmm. ah, nuyul ma ko bu baax a baax léegi la fecc Youssou Ndour fecc yu metti yaasin Yacine ah. ah, yaa ngi gis li may joxe cadeau sànq ba léegi. waaw bu euh, xam nga L'Obs. waaw muy euh, journal boobu nga xamante ni lu mu bind téere la. Mm-hmm, yamuñu ci ñu indi le calendrier grand bal. def ci mm. photo Youssou maa jigéen léegi bi nga ban nga ci bëgg ma may la ko bu Youssou Ndour bi nga bëgg ci Youssou yal na ko yàlla lan nga koy ñaanal Youssou lan nga koy ñaanal ci sa xol yàlla wéral baat bi amin amin yàggal ko fi lool amin te wér mu dund ba njaboot bi yor ko amin yàlla mën na ko te yàlla na ko def ci barke Seydina amin amin amin Euh, comme Apulaay jëlal ñu kook nga xamante ni moonu ñaanalal ki nga xamante ni royukaay la ci réew mii muy yuusu maa jigéen euh, jël numéro ñu may ko ci li nga xamante ni mooy calendrier grand bal bi Apulaay léegi nag defe naa ni ñoom dumbe ñoom ñëpp jub nañ taxaw xale interview yi tegal leen clip ma xool tegal ma xale yi clip ñu ñu jëngu tegal clip bi ñu ñëw aca let's go kenn du di Diop te Sidi dafa woy ñi nga xamante ni dama leen a bëgg ci sama xol mu woy Alima Ndione naan ba la Lion ak woy ki nga xamante ni mooy Boubacar Mari Mbaye waaye nag da dangaa wax lu rëy ndax xool nit ba mu neex la koo xamante ni lay ab yaay fàll rek mun la ma neex te Sidi nee na man maa koy daaneel comme Sidi jóob yal na yàlla wéral sa baat bàyyi la ba nga yeggalee sa sago waaye woy wi def na single bu bees ak Salam Diallo ma di mu jox ko fan fans yëpp di ñaan képp koo xamante ni rek fan si Sidi Diop nga nga xaar single boobu nga xamante ni mi ngi koy waaj a teg ci seen loxo Sidi danga maa bëgg maa la gën a bëgg fuuf tax li ngay woy sama biir xol la dugg di jóob yàlla na la yàlla fal cet ba ngay yeggalee sa sago ndax li ngay woy dugg na ci biir solu xolu sénégalais yi maa ngi lay ñaanal bu baax a baax di wax ni say fan fans loolu laa leen bégale woon Sidi jóob baatu maa la bëgg dafa foor ndax fu la nit safoo am na koo fa soof fu la nit bëggee am na ku la fi bañ te Sidi ki nga bëgg moo la gën a bëgg fuuf ndax foo tëggee maa ngi sa ginnaaw nga yëg nga ñàkk ba ñu yëg Sidi maa la gën a bëgg di wax ne nag euh, Apulaay damay ñëw dugg Cambérène ci benn euh, famille boo xamante ni muy famille Abi Jéeri Saw di leen bëggee bu baax a baax Cambérène Ali Ali Jéeral Saw di sama pël tooroodo yooyu nga xamante ni bor allo. allo salaamaaleykum. soxna si na def. maa di la bëggee noo tudd ak ñuy woowee. maa Saint-Louis. waa Saint-Louis. maa ngi lay bëgg bu baax a baax ak sama eh, chéri ba fa ne Thiaré Diallo. yaa ngi ci jàmm. ana waa Saint-Louis mbaa jàmm ngeen yendoo. waaw yéen a ngi ci jàmm. bu baax. bu ngeen wàññee seen télé bi tuuti rek ñu daal di déggante déggante bi gën a neex. waaw wàññil télé bi ñu daal di jàkkaarloo. ndax jàkkaarloo balaa neex ñi jàkkaarloo bañ a bañe. alo oh oh Apulaay waa Saint-Louis ah xëcc bu daggul rek dikk baa mu yendoo teeng ñëw leen noonu laa ko bëggee ñuy jàkkaarloo di di bégalante ndax altine bu ne ajaratu mati nag namm naa la lool di wax ni chéri Carter gaawal nga ñëw jël sa place ñu ñu di pelloo lu neex di wax ni bu ma demee Cambérène ci famille Ali Jérel Saw saw pour la ardo borom nag ak meew yi il faut ma ñëw Cambérène seet si meew yi ñuy wax ak nag yi foofu ci Cambérène te duñu ci fi ndax euh, ki nga xamante ni mooy faatu jaañ Laay Sarr maa ngi lay béggee bu baax a baax di wax ni tamit ki nga xamante ni mooy mantu Laay Sarr ñoom ñëpp ñu ngi may seetaan euh, Falmar Falmar Laay Sarr ma ngi lay bigge foofu ca Cambérène di wax ne Cambérène nag su ma fa duggee ah damay jeex ndax coro sama waajaa nga fa sama waaji sama waaji ndama ngi ci gàccee ngi ci waaye coro yow kenn du yow ci man ndax ba ñuy tuut la ñu ànd di jàng ba tey te dara ñaawul coro kenn du yow maa ngi lay bége di wax ni kenn du sama sëriñ ba nag ki nga xamante ni mooy tafalaay nee na fu ma tuddatee ki nga xamante ni mooy du du Faye naa ci teg tafalaay ak nga xamante ni mooy eh, Carter comme tafalaay yow fii lañ la def ci digg bi laay alasaan ak seeni di tàllal loxo yi di sàkkuwaat ñaan rek ak ki nga xamante ni mooy laay laay sama ñooñu nga xamante ni maam Seydi laay ñaan mu téyal ma leen euh, yokkal mu fan yi ba ci kaw ko euh, laay alasaan ak seeni waa Cambérène gépp maa ngi leen di ziar te di leen wax seen wàccuwaay di wax ni nag euh, duma ma ci wéet apulaay clip bu ñëwee wala ku nekk ci ligne bi rek paas ma ko ndax defe naa ni dama ni un peu de parole beaucoup pour gars yi bëgg na gaa yi ñoom dumbee ngay tëb saal naaw dumbe na daal yi tëb acca waxal ak man lii ma gën su ma gisee yaa ngi saale sa bëggel ma ngi lay rey seetlu naa seetlu naa seetlu naa seetlu naa tooga soo ma gisee yaa ngi saale sa mbëggeel mi ngi lay rey seetlu naa seetlu naa seetlu naa seetlu naa yow mën nga noo su samedi jotee yaa ngi xool li may sañ si su dimanche jotee yaa ngi xool son on trigger one money man on me wona ma fon ko ngala dale dela sa telephone photo you name ma yo let's love line sonna salubute jagar jagari pop pop pop pop pop yangi may gañ am na yërmande ci jigéen ñi woo oh, li neex ma mag nga ma rab mag ma dina seytaan sama gel koo xamante ni rek sant nga Ndoye Maly Maram Ndoye Waly woy na la Waly sekk nag da xale yi dañ koo bëgg mu xew lool nag di def lu neex Waly dundal yal na yàlla wéral sa baat ndax yaa ngi béggale di wax ni maa ngi koy may jaal jub foofu ci Touba si Waly sekk ak nga xamante ni mooy tikkee Ndiaye sama eh, jaam boobu Tické ñu ngi lay may Wally sekk boobu ndax eh, fan su Wally nga di wax ni eh, ki nga xamante ni mooy Lamine Baro toj na saal bi mook idi ñoom fii rek lañ toog appu fi nga ko jàpp foofu la gars yi di ko may nag ki nga xamante ni mooy sama chéri muy Maguette eh, Maguette foofu te clinique la Sophie ak ki nga xamante ni mooy mami ñu nekk fii ci ginnaaw foire bi nekk sama njëkke yu baax a baax di leen bégal ci Wally Seck boobu ak képp koo xamante ni rek fan si Wally Seck nga maa ngi la ko doon jox te di la ko bégal di wax ni nag gars yi cadeau yi xaajul te yor naa njogonal yu duuna duun nañu dugg ci ligne bi ma jox leen ko parce que pour ñoom la euh, apulaay fi nga waxoon foofay xasan xam naa ne ndumbe moom toog bëggu ci dara na jolli rek ñu xoolati nan la ñuy def ak jeeg ji nga xamante ni danoo neex ceeb yërëm seen jëkkër bëgg seeni goro te baax lool ku ci mel ni yaa faatu ba sama jeeg ba ma nga ci interview ak ki nga xamante ni mooy xadiloo mbeng ak euh, alo nañ jël téléphone ba pare ma doog a yeggali sama jeeg ju baax jooju ca kër ga allo allo salaamaaleykum waaw maaleykum salaam. soxna si noo tudd ak fay wootee. Ndeye laa tudd. maa ngi dëkk Abdou Karim Bourgi. Eh, Ndeye ana waa Abdou Karim Bourgi. ñu ngi mbaa ñëpp ngi ci jàmm. alhamdulilah. ñu ngi lay dalal ci suñu seetu bi Ndeye. maa ngi lay dalal maa ngi ni jàkkaarloog yow Ndeye. waa ah, dërëm na nga def nag. maa ngi lay bëggee Ndeye. sa yére bi rafet na. yow dong laa ko tudd loo gis rek Ndeye la tudd. billaay nday amet ay dërëm danga ma neex rek te yàlla tax waaye loolu dara fayu ko dama bëggoon facilité ci thème bi ndeysaan ñu ngi lay déglu dërëm na def nag maa ngi lay bëggee nday dërëm kontaan naa ci yow de maa gën a kontaan ci yow waaw ana Mati Mati dafa dem congé sama nirowaale bi mu nga États-Unis di ko lëmbee tey xam nga man États-Unis taw mënuma woon xaar ñu ànd ci Viviane moom dina dem parce que dina jógee euh, États-Unis dem ndax grand dame yëpp dañuy dem wax nga dëgg wax nga dëgg wax ñoom ñëppay dem si nit ah? hmm? luy thème bi mooy que ni ah, dañu bëgg de bëggalante ndax tey ci suba Mami Diop ak euh, Tata def nañ thème bu am solo mais ñun divertissement lañu wax clip boo bëgg ñu tegal la ko wala ñuy jox la ci suñu cadeau yi ñu yor soo bëggee ñu defal la ko tem ñi ñi nga xamante ni ah si sedd bi bojo bojo waaw dina ñëw clip bi ñu ngi ciy def. dinañ ko defar dina ñëw. day ñëw Youssou rek. ay waay Youssou Ndour ñu koy ñaanal jàmm. est-ce que xam nga ni bojo bojo da koo woyal réew mépp waaw waaw. bojo bojo kay moom amul morom amul mënul am remplaçant. billaay dëgg la. billaay. moom daal nga bëgg yow ci sa xol. moom laa bëgg ci sama xol. léegi yow xoola grand bal bi dama yor ay calendrier. waaw yaa ngi may xool yow xam naa fan si Youssou nga. di gis nga ko waaw lay xool. am na ay photo yuusu yu nekk ci biir yoo xamante ni benn boo ci ibbi rek sa xol day sedd. waaw yaa ngi may gis. waaw maa lay gis bu baax gis nga ko. am na ñii lañ ko toppee nag grand bal ba bàyyiwuñu ca dara. bunt ba ba digg ba ba ca biir biir lépp a ngi ci biir calendrier bi. léegi bu fekkee kii na appelaay. jëlal na jël sa numéro ci suuf ma may la bii nga xamante ni ah, mooy bojo bojo bi lépp a ngi ci biir. boo ko ah. xoolee day mel ni yaa ngi ci biir bojo bojo bi laa bëgg. waaw a Abdoulaye dina la ko tegal mooy ki ne sama ginnaaw nga xam ni lépp mooma voilà ah mi ngi noonu léegi Abdoulaye mayal ma ko sama yaay jooj nga xamante ne mu ngi ñuy woote di ñu bége ndax léegi mi ngi wër yaay mi ngi lay wëral clip bi nga xamante ni mooy bojo bojo ah sama fans ba waxati ci lu rëy xaadim ñëw na moor xar ma tey daal defe naa ne ñi ma dar moom amba en arrière ci biir émission ndax képp kuy professionnel de euh, les hommes de l'ombre rek ñoo ma wër te jàpp ci loolu ba émission bi mën a jëm ci kanam kenn du Famara sama patron ba Famara na naa la yaag Njaga ma moom mu nga xamante ni ah dama ne nag euh, tànn ceeb daal man daal nee naa daal ñoom duñu tànn sax sax xam nañ la ca bokk rek ñu boole ko ca di wax ni sama bàjjen Ndeye Ngone Gueye fara mi ci neer naataango mi ci mbay laar borom jom ji bari bagage te nangoo liggéey borom port borom Gambia maa ngi lay béggee bu baax a baax ak képp koo xamante ni rek bokk nga ci farama ca ndeer naataango mi ci mbay laar géy a sama ah, bàjjan boobu nga xamante ni ndey xam naa ne mu ngi ci télé bi di ma seetaan di wax ne nag boo ko làmbalee Youssou maa jigéen dina ko neex ndax dafa bëgg Youssou Ndour ci xolam ak képp ku sant géy rek di farama ca ndeer naataango ma ca mbay laar may ko sama bàjjan boobu di eh, bàjjan ngoone géy acca ñu dem ci ngoone sama eh, doomi nday jëcc eh, Rufisque di ko béggee te xam ne ñoom ñëpp apo apo ñëw na wala ñëwul clip bi ñu xool ndax tey sama sama parewul ca comme ñu maye waat dédicace ba ci kanam rek ñu maye dédicace ak képp koo xamante ne woote nga ci bunt bi cent 88 628 vingt 22 ak yi nga xamante ni mooy 88 628 04 cinq ma daal di lay jox ci cadeau yi nga xamante ni acca nan clip na yuusu ñëw ma xool ñu bojo bojo ewa nawet yi sax dootunu tooyo léeg-léeg mu war ba tori booyo sëriñ be kor su dewa jooy ña daa joxe ngi laaje sarax nu naatal xarnu be ama ma xamam di la woo waaye murid yi ñoo ma woo ne bu nu woo salaame ña yoyo bonu fa bu léeg nu ne wooy ñun ku ñu yafal ba ñu defi kuuy mu dellu naa tal xarnu bi gisuñu yaay te ñoo ku ñàkk yaay day namp maam macha allah ah kooku nag mooy Papa Ndiaye coppet di ndaanaan eh, di koo xamante ni tubaarkàlla macha allah ambiance moom eh, macha allah Papa Ndiaye kenn du yow yal na yàlla guddal sa fan yow it wéeral sa yax nga yàgg a bégal réew mi ndax euh, tambour major bu mag la te li mu def téere la ma gis ci sama xarit ba chocolat jaw doomu nday fling fling ton ñooñu lu yàgg la te lu yàgg dëgg la te ku bañ démb sa démb jagul doomu nday jee asu sare foofu ci États-Unis chocolat jaw maa ngi lay bége bu baax a baax di wax ne nag ah apulaay ndaanaan dafa woote muy faatu Wore faatu Wore nee na day woote la 15 février di ci woo adduna bi yëpp di woo waa di wax ne day sargal xaritam di sargal papaam muy Boubacar Marie Mbaye borom maami ci bore nee na nag paas bi 1000 kese la na ñëpp ñëw wuy ko moom Fatou rek Ndeye Fatou Diouf maa ngi lay béggee bu baax a baax dégg naa yaa ngi sa bureau di ñu seetaan ak waa ki nga xamante ni mooy clinique Adja Sofietou na ñu ngi toog ku ma solal mooy ki nga ni mooy Ahmed Tidiane foofu ca Unité 13 euh, ca Unité 3 borom Agnam Couture Ahmed Tidiane taalibe sëñ Babacar si boobu moo ma moo ma solal apulaay xanaa dig ma may comme ma joxe numéro téléphone am muy ki nga xamante ni mooy Ahmed Tidiane mu ngi noonu moo def ba baax muy 77 963 41 72 muy Ahmed Tidiane taalibe sëñ Babacar si fi ñu ko teg foofu la bu ko teg yaa ngi gaañ kuy daggati na la àbb si muy Ahmed Tidiane doomu ndey Ouzin Keita maa ngi lay caaw di tàggu ñëpp di leen wax ni ba beneen yoon ak yeneen feem ak dërëm bu dijee boobu dara du day caaw